mooy lépp loo mënti def lu nekk d'abord dañuy jiital jalo parce que xam nañ à chaque fois foofu lay mujj ñun nag foofu la ñu tàmbalee je pense que woo nañ leen ci jàmm mais boobu ba léegi dafa mel na ñoom parewuñu pour loolu bañ nañ ko sax ba jël délégation yóbbu ko pour Dakar pour ñu amal foofu waxtaan ak ñoom mais pratiquement ñoom fi ñu taxaw rek foofu lañ taxaw ñu dem ba fi une notification de grève donte yoon sax may nañu bi suñu préavis jeexee ñu grève mais juste pour leen ñun on est animé dem nous déposer une notification pour xamal leen ne dañuy dem grève ñu demander ñu à ce que ñu suspendre pour ñu prolonger encore waxtaan léegi nag defal nañ leen aussi des contre propositions mooy fexe ñoom ba nga xam ne dafa diisoon ci ñoom ñu oyofal leen mooy paiement yi nga xamante ne ñoom dañ ko waroon a fay depuis 2016 ñu yombalal leen ko ni leen nañ ko commencé depuis 2021 bu dee cadre aussi ñu defal leen fa ay propositions yoo xamante ni vraiment kenn amul lu mu ciy teg mais jusqu'à présent ñoom fi ñu taxaw foofu lañ taxaw dafa mel ne rapport de force lañ soxla moo tax na tey ñu décidé à partir de vingt heures ñu taxawal opération yëpp sur ce nag ñuy wax bépp liggéeykat ne ñun li ñuy def dañ ko teg ci yoon moo tax dañu bëgg aussi ku nekk mu taxaw ci yoon mooy tojloowuñu kenn yàquloowuñu kenn parce que nag xam nañ bu baax fi ñu